fondation soxna Baali Muntaxa ñoo jógaat jëf-jëf ju am solo lool ci biir weeru koor gi lépp rekk jëm ci taxawu mbindeef yi ak mbooleem seeni jafe-jafe ak seeni yitte fondation bi waajal ay kiit yu am solo muy sachet yi nga xam ne moom ngeen jàkkaar lool muy ay ndogo yu ñu waajal ngir fas ko yéene jébbal hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba mu toll ci juróom benn téeméeri paquet yoo xam ne benn bu ci ne am na lees mën a ndogo muy sandwich boisson tàndarma ndox ak yeneen xeetu bernde kilifa yi nga xam ne ñoo jiite woon délégation bi bi ñu agsee ci hôpital Matlaboul ni ànd na ñook yeneen kilifa yi nga xam ne moom lañ fa fekk ñu dugg ci saal yi nga xam ne ci la malade yi nekk malaat bu ci nekk ñu jébbal la benn sachet waaye ñaanal la ci feebar bi nga xam ne moo la dal yàlla suñu borom teggil la ko. ginnaaw bi ñu waree hôpital bi yëpp ak saal yi délégation bi am na kàddu yoo xam ne yëkkati nañ ko fa leeral ñi nga xam ne ñoo nekkee ci hôpital bi lu sabab jëf gi. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim xabli safinatan bi kullil janna min daarati min nan yaasal min na ataaniyal marka bu fii daari min nan indata sinta duxulani daari min nan ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi di sant Serigne Touba ñoo ngi ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ba naal yi mu naa la lislaam naa la ko Serigne Touba mu àggale ko ak sagoom ñaan boobu ñu koy ñaanal képp kuy soosu daal dox te lislaam rek tax mu mel ni nag soxna Bally Mountakha bindu Serigne Souhaïbou Khadim Rassoul moo ne fi yebal tey ñu ñëw ci turu fondation Soxna Bally fondation Soxna Bally nag day fondation bu yaatu boo xam ni day ci réew mi ak ci bitim réew muy fondation Soxna baali dara taxu koo jóg nag lu dul dimbali nit ñi ak taxawu leen taxawu ndey daara yi taxawu daara yi dimbali orphelin yi ak ñëw di doole yi ak ñi nekk ci hôpital yi loolu moo tax fondation bi jóg li ko tax a jóg lépp daal dañ koy tënk ci baatu social moo tax fondation bi jóg waaye nag képp kuy yëngu ci social boo ko njëkkee ci hôpital yi li ngay def xam nañ yàlla rek a tax nga di ko def démb ci waxtu wi nekk ci hôpital Ndaamaatu tey fii ci hôpital bu ñu miin mu hôpital Matlaboul Fawzeyni nga xam ni docteur Lo soxna maam Jobbe ak monsieur Touré mi nga xam ne moo fi teewal directeur bi lépp lu ngeen di def ci hôpital bi surtout seen amical bi lépp da ngeen ceet baaxoo jiital la soxna Bally Mountakha ba bërki dem lañ ànd ak moom ñëw fii ci pédiatre bi ngeen mare ne ko lépp mu jëf ji jëf ju rafet ji mu ci def waaye yéen ngeen cër bi ngeen ko delloo ba am yéene jël pédiatre bi tuddee ko ko loolu muy loo xam ni kon lu sedd suñu xol la kon fondation bi daal looloo ko tax a jóg moo tax ñu njëkkee fii tey soxna si ñëw nag yónni ñu ñu indi six cent sachets yoo xam ni ay barket mi ngi ci am na mburu ak ndox boisson ak sucre ak tàndarma lépp loo xam ne ku wor ba ngoon war na koo mën a soxla rek lépp dugal nañ ko ci biir sase yi loolu nag buñ ko dee def ngir xam ni képp ku woor ba ngoon nga yëkkate doomu tàndarma rek jox ko yool boobu kenn xamul nu mu toll yàlla saa borom rek ko xam moo tax soxna li nag fas na yéene daal liggéeyal yàlla ci jaami yàlla yi loolu rek moo tax a fondation bi jóg dañ la ni ndax euh, jëfi soxna Bally moom ay kàddu waru cee tegu ndax nit melu ni mu wax ni mu def rek la mel kon ñi ngi mu sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér ci barkeb sëñ Touba jërëjëf. maa ngi leen di nuyu yéen ñi fi teew ñëpp di jiital ci nuyo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te wér barke Cheikhul xaddim di ci teg soxna Baali Muntaxa Baay Faalam boobu jàmbaaram jooju jàmbaaru lislaam ki fi xamante ni moom bu soxna jaara ñëwaan ñëwaatoon jamono du changé toogaay ñu koy nuyu di jël suñu nuyu di ko teg ci loxoom mu jàllaleel ñu ko ci sëñ bi di wax ni lii moom duñ ko wax guléet ndaxte barki Dembo Ndiaye lañ am suñu journée jagleel ko ko mu ñëw def fi loo xamante ni ba hôpital dee hôpital ba léegi kenn mësu ko fee gis kenn mësu ko fee dégg loolit nag ñun kon niñ ko waxee rek du ñu bett ci biir loolu nag ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal liggéey bii muy liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul yàlla bu mu ci am benn ndog-ndog yàlla na ko yàlla musal si cat ci làmmiñ te lépp lu mu yëkkate rek mu tasee ceeg tawféex sëñ bi ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm xam naa sax dañ fee taxaw ak ki nga xamante ni moo représenté suñu directeur ndax directeur moo amoon yéene taxaw fi teew fi mais dafa am atelier boo xamante ni directeur yëpp ñoo fi teew mu yebal suñu SSI ki topp ci moom. directeur hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba sant na bu baax a baax fondation Soxna Baali jaarale ko ci kàddu yi ñi nga xam ne ñoo ko teewaloon ci jotaay bi. jëf ji nag dafa kawe ci ñoom lool. Ah, comme ni ko ma euh, madame Mbacke waxee directeur moo feroon na ñëw sànq rek woo na ma ñaari yoon ndax na ma foo toll naa li ma munti def naa ko bàyyi ma ñëw teewal ko fii euh, mu ne ma soo demee ma wax fa ay kàddu cant ak ngërëm lii nag du ñëggule si soxna si ndax yàggul dara ñëw na fi indi ay xewal yu bëri yóbbu ko pédiatrie activité bu hôpital bi am personnel bi mu bokkoo ñoom ba démb rek fële lañ doon conférence religieuse bi. mokk personnel bi yëpp ñoo ko ànd ba ba mu pare donc sëñ euh, directeur ne man naa ko euh, an prononcé ay cant ngërëm euh, si turu hôpital bi si turu personnel bi yëpp yëpp yëpp yëpp di ñaa ko ñaanal aussi liggéey bi nga xam ne moom lay liggéeyal Serigne Touba yàlla na si dajeek ngërëmal Serigne Touba waaw loolu lañ amoon lu ñu am wax daal si turu directeur. soxna Bally nag moom suñuy wax ci moom dañuy gàttal rek ndax temps bi mayuñu ko waaye gëm nañ ni mun doon écrivain dinañ bind ci moom 1000 pages. ndax yëg nañu te suñu relation ak moom wax dëgg yàlla ay taalibe lañ war nañoo mën a am ci moom paar waaye li ñuy liggéey da koo ñor ndax hôpital ku fi ñëw rek bëgg nga ku la yërëm te loolu ànd na ko ak ñun jàppale ñu. Mhm. sagal ñu oyofal boppam ba keroog bañ ko owee pédiatrie li mu fi def lépp gis nañ ko te gëm naa ni ni ma ko xamee pareegul ci ñun. Mhm. bon li ñuy ñaan yàlla yàggal ko fi lool te ànd ak wér. te hôpital bi moom a booleek moom. wax dëgg yàlla jërë jërëjëf na fi yàgg lool te wér. Eh, soxna Bali moom eh, dañ koy baale dañ koy bàyyeeg yàlla ak sëñ Touba wax dëgg yàlla suñu amical bi ñu ko organise bi ñu ko créé ba léegi suba ngoon mu ngi ànd ak ñun te fu ñu lu ñu soxla mu ngi ciy taxaw kon nag ñun dañ koy ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wérgu yaram moo xam li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal ci barke Xaadim Rasul jërë ngeen jëf yéen ñëpp pédiatrie bi nag mébét bi ci pédiatrie bi tamit incha allah li mu jot a defal gis nañ ko waaye euh, comme niñ ko waxee woon rek pédiatrie bi moom lañ ko jox moom lañ ko jox moom moom lañ ko féetale moom moom pédiatrie bi léegi nag de ce ñun aussi lépp rek suñu diggante moom lépp lu mu sumb rek bu soobee yàlla dinañ ci taxaw suba ngoon jëf ji nga xam ne nag fondation Soxna Bali def na ko fii ci hôpital Matlaboul Fawzeyni du fi yem rek ndax noonee la ko fas yéene defee ci hôpital Ndamaatu bu Touba.